maar kii mooy Mbaye Jacques Diop yaakaar naa ne ci lamb moom wala sax Sénégal sport réew mi laay wax ku ne xam na ko ci tey nga yore communication ministère de sports ñu xëy fekk leen fii ngeen nekk ci wàllum nettoyage ak set setal ak yooyu Mbaye Jacques tey lu tax ministère bi yëpp génn pour nettoyer koñ bi ak li ko wër. waaw d'abord ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax rek nag euh, lii initiative ministre des sports la bi mu xoolee ni moom mi ngi fii depuis juróom benni at mu xool fii lay jullee jumaa fii lay passé la plupart du de son temps mu ne balaa moo dem Fatick defi clean clean clean up day bi dina ñëw def ko fii anticiper ko au niveau du ministère des sports mu sensibiliser ji tous les agents du ministère yaa bu gis ngeen le secrétaire général e là le directeur de cabinet est là les chefs le les chefs les directeurs et chefs de service sont là les conseillers et tous les agents loolu moo tax c'est une initiative du ministre nga gis waa koñ bi yëpp aussi génn nañu parce que lii aussi dafay won ni ñun B bi suñu cohabitation ak ñoom ba léegi jig nañu macha allah te vraiment on a de bons rapports ak ak ak euh, les les les riverains. ok mais tamit du ma ñëw ba dem laaj naa ko ministre laaj naa ko Pape Thialis Faye lamb ji actuellement dafa taxaw te yow yaakaar na lamb am na lu bëree bëree bari loo xam ne boo ko ci wax dinañ la déglu lu waral taxawaay bi sax mooy ci côté VIP la ñuy wax mbër yu mag yi boog ñoom ñoo bari ñoom ñoo të am ay combat. non xam nga lamb taxawul. parce que quand on me dit que làmb dafa taxaw daf may jaaxal parce que làmb chaque dimanche ñu bëre chaque samedi ñu bëre gars yi ngi bëre dans les arènes kii dans les euh, luttes traditionnelles simple yi donc làmb taxawul maintenant peut-être que am na ñoo xam ne am na ay combat yoo xam ne nit dañ koy yaakaar par exemple combat bu mel ne Ama Baldé Modou Lô la kenn affiche gënu ko rëy parce que loolu wasin bees la musul am mais soo xoolee ñi bëgg a bëriwaat yëpp à part peut-être Gris Bordeaux ak Lac de Guiers 2 ñëpp bëri nañu donc làmb làmb que fi ñu bëgg cachet yi moo moo rëy et je pense que nit ki aussi da ngay xalaat ni yow euh, peut-être que aujourd'hui l'environnement euh, économique et financier n'est plus propice n'est plus favorable yow yaay war a teggi sa tànk wàññi ne kat man kat lii mooy sama métier donc su ma amee benn cachet wala ñaari cachet 20 millions wala 30 millions ci année bi war naa mën a sëgg bëre donc mais lamb taxawul parce que lamb mi ngi dox quoi qu'on puisse dire parce que ñi ngi bëre man bari a de la lutte su lamb taxawuloon yéen ñi nga xam ne par exemple vous êtes des spécialistes des médias du ngeen am du ngeen am du ngeen am lu ñuy wax le postulat la matière grise am ngeen matière grise parce que chaque semaine ngeen dem gis ay combat chaque semaine ngeen dem defi ay interview xam nga ay avant combat donc lamb mi ngi dox maintenant euh, il faut relativiser pour voir qui sont aujourd'hui les les les les les VIP parce que VIP ci lamb moi je pense que bu ñu il faut ñu relativiser VIP mooy kan ci lamb peut-être on va me dire Balla Gaye Modou Lo Eumeu Sène Gris Bombardier mais ñoom Boy Niang ay VIP lañu Papa Sow VIP la euh, ku mel ni par exemple Siteu VIP la parce que c'est des gens qui drainent du monde donc VIP bu fekkee dañ ko dañ en termes de finance donc il faut relativiser mais je pense que ah, lamb ji bari na ay VIP yoo xam ne parce que am nañu mbooloo peut-être que wala VIP bi ñoom xëy na peut-être du financier lañ ko gisee. kontaan tamit ñëw na ah. ku leen fi indi. ku leen fi indi. man dama doon doxantu rek ba ba ba tombé ci tey ñu fekk ci fekk la ñuy def lu wàllum jëm ci cleaning day bi yu mel ne ki noonu nga ñëw bokk ci lu waral teewaay bi fii pour yow. waaw teewaay bi lu ko waral mooy instruction président de la république parce que foog naa dafa sa réew moom lii bokk na ci donc bu président amee initiative wax ñëpp ñu dafa seen réew donc ñu romb gis ministre bi nekk ci nekk si à côté ñu takkaloog moom presque bokk bërëb bu nekk donc moo tax ñu wàcc si terrain bi ñëw jàppale ko ci lu président wax donc jàppale suñu bopp parce que président moo joxe instruction yooyu. mais dinaa la ko laaj ministre bi wax na ko léegi nee na mbër yi lu ñu war nañu di jël di bëri di bëri lu bëri di bëri lu bëri mais yow sénégalais yi dañ lay xaaraat boobu ba tey ñu ngi def demande bi mu mel ni demande sociale la retour jalisaat ci làmb pour deuxième fois te gisaguñ ko ba tey waaw mais lu ministre wax foog naa ñu ñëpp wax nañ ko yàgg nañ ko wax parce que euh, liggéey la liggéey boo xam ne am ñaari combat ñetti combat si at bi ak 30 millions ou 25 millions moo gën am benn ñaari combat si 100 boo xam ne ni boo paree tas ko donc wax noonu moom la ñëpp di wax mi moom promoteur ñëpp moom la ñuy wax te loolu mooy yoon pour bu liggéey bu mën a continuer lamb ji mën a yegg fu mu yegg il faut que la mbër yi yoon u ñett yoon si at bi donc loolu aussi il faut cachet yi retour l'auto si lamb ji en euh, ku tëgg. bu cachet yi wàccee rek ñu ñu ñu. boo démarché di nga xam cachet bu yëg bu wàcc tamit boo toogee bañ a démarché. mais da jël jël na ko la ngay démarché booy démarché tam même chose yàgg nañ démarché dem dem si loolu rek waaw. mais na su kon yow su ma la déggee. ah si bu ñu amee kay ñu ñu tëgg. mais mais secret la yéen bokk nañ si. yéen a seetaan image yooyu ngeen di seetaan. nekk zone bee jàpp zone A parce que ministère bi ku ne xam ne ne mu ngi zone B tey gis ngeen en face ministère beeg li ko wër yëpp xëy na génn personne ñu nekk ci di def cleaning day comme ni ñu koy waxee monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay fay di am mbégte recevoir leen fii j'espère que bale ngeen. parce que seen toilette bi moom defe naa ne boolewu leen ko bale. non man moom bale naa moom. ah kon ñoo kon noonu la kon noonu la c'est ça. lu waral lu waral génne bi tey génne personnel bi génne ñëpp def lu mel nii maanaam set setal bi tey ministère beeg li ko wër yëpp. waaw xam nga fii liggéeyukaay la daanaka ba ñu fi nekkee ba léegi dinay am ay nettoiement ku nekk ci sa service di nga ko toppatoo waaye comme kilifa réew mi. dafa joxe ay tegtal ñëpp nekk ci nettoyer bi ñu jàpp ne balaa ngay nettoyer quartier bi ku nekk dafa war a nettoyer fi mu nekk. loolu li muy wund ci communes yi mooy ku nekk bu nettoyer këram nettoyer buntu këram su ñu ko dajalee lépp set moo tax tey ñu nettoyer fii nettoyer it parking bi nga xamante ne moomuñu ko waaye ñun ñoo ko bokk parce que suñuy oto dañ fii gaare nettoyer fii nga xamante xejuñu ci jumaa ji dañ fay lal. war a defaraat toilettes yi ba nga xamante ne dara du fi toq yàqum ndox mi parce que. am na nañu robinet yi mel ndox mi day tuuru te loolu non seulement baaxul ci wërgu yaram mais yàq la loolu lépp la ñu saytu tey pour defar ko su ko defee suba nag ñun ñi nga xam ne ay maire lañu ñu dellu suñu gox yi comme man Fatick laa jëm suba pour euh, nettoyer ji ma anticiper nettoyer fii tey ci vendredi bi di gërëm nag tous les agents parce que gis nga leen ñëpp a génn directeur yëpp génn nañ dañu bëgg a nag balaa midi pour ñëpp mën a dem solu jiwaat pour dem juma. moo tax ñu teel ko commencé jigéen ñi gis nga leen ñu ngi serpillères yi ñi yore bale ku nekk jumtukaay bi nga mën a téye ñëw parce que wérgu yaram ci jaamu yàlla la bokk defe naa ne diine yëpp muy lislaam muy beneen diine ku ci ne jël na gu yaram ak cet def ko ci digg bi parce que bu loolu amul defe naa jaamu yàlla gi du mel ni mu a mel am na solo mais am na laaj boo xam ne sénégalais yi sax ñoo koy faral di wax jëw la ci yow maanaam disponibilité bi ak oyof bi ak nangam man maanaam ministre boo xam ne daal bu accessible la lan mooy secret Matar dañ ko koy yare wala lan la wala lu xew. c'est man bu ñuy wax loolu damay xaw a jaaxle parce que man mel ne neen moom ma war a jaaxal waaye defe naa ne buñ la tegee ci boppu kër mu am njaboot su fekkee ne jege woo njaboot gi nekk ak ñoom jox leen cër ñu dellool la ko njaboot boo xamul lu ñuy dund mënoo andi saafara ci seen i jafe-jafe te yàlla dimbale na ma ba lépp lu may def noonu laa mel réellement man defuma dara di ko jéem a copier wala may jéem a am leneen lu may ànd ci sama bopp loo gis may doxe rek wala ma di ko waxee c'est nature donc yar boobu laa am te defe naa ne euh, des fois mu métti nag parce que Sénégal def mun nga dajeek nit wàcce sa bopp te du xam euh, fu mu war a yem wàccee humilité boo gis day am ay conséquences yu xaw a doy war des fois waaye li ëpp solo mooy nit day xam ne nit rek la amul nit ku gën beneen doomu aadama yàlla dafay jël nit jox la cër jox la loo war a liggéey da nga ko war a liggéey ci worma liggéey ko ci jom liggéey ko ci fula. et puis euh, ki ñu ànd loolu la ñu jàngal muy la président Macky Sall parce que moom itamit ku ko xam-xam ne amul leen lu mu yenu dafa nekk au service des populations. te ku nekk au service des populations il faut nga am humilité am engagement mais am ouverture ba ñëpp mun la waxal wax li ñu xalaat su ko defee nga xool li gën nga liggéey ci pour muy njëriñu askan wi duma dem tamit te waxuma ak yow si làmb ji parce que dégg nañ bërki démb kani waa CNC bi jël nañ dogal bu toll ni kani léegi promoteurs yi ku ci ñëwati di jàpp dat rek di nga indi benn caution boo xam ne ni un million lay doon su fekkente ne caution boobu nag indi nga ko jour làmb ji jot te tëgguloo nga da koy ñàkk bu fekkente ne nag tëgg nga ñu delloo la ko ba dégg naa sa ay jot nañ cee wax ba ñu war cee daje ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa CNC ñoom promoteurs yi loolu yow noo ko gisee est-ce que que CNG. dañu am mission donc question boobu boo ko posé CNG dinañ la ci jox réponse bi nga xamante ne moom man daal li may lancer un appel mooy ñi bokk làmb ji ñoo war a defar làmb ji quelque que soit nag lu mën a am bu ñu ko toogee waxtaanee rek dinañ gis yoon defe naa ne li fi xew daaw wone na ne waxtaan moom mooy lal lépp loo xamante ne dañ ko fi sumb waxtaan déggoo moom mooy tax mu dox te làmb ji nag ñëpp a ci am intérêt sénégalais yëpp. kon ñun ñëpp ñoo war a joxante loxo pour mu dox loolu laa am lu ma wax la ca des nag mbiru CNG la ak ñi ko bokk euh, defe naa ne am nañ mat gu tax ñu war cee waxtaan parce que ndogal bu am rek ñi ko seq dañ ko war a toog waxtaanee su ko defee la gën ñu def ko. Balla Gaye amul combat Tapha Tine amul combat Bombardier Eumeu Sène Gris Bordeaux mbër yooyu yëpp a ngi train nag ñeneen ñi la gën a suufee nekk ci suuf loolu ministre lan moo ko indi. waaw mais mënoon tànn ñooñu rek ne combat combat parce que nit ñaa ngi bëre chaque samedi di bëre chaque dimanche. ñooñu nañu fexe rek ànd ak intelligence ñu leen di ñaanal ñu ami combat man daal bu ma doon mbër moom. dinaa bëri ñetti yoon ci ci ci ci ci ci ci saison bi. maanaam lu ñu la fay buñ ma fayee 40 ma ma bëre buñ ma fayee trente ma bëre. damay bëre mois ba ca tegu ma bëre waat parce que euh, liggéey la damay wut xaalis mais boo daanoo it boo jógee say fans dañ lay topp rek. jarul vraiment euh, benn combat man dama leen di yërëm sax benn combat ñaari at ngay soog a bërewaat ak lii la topp ci ay nit. ak devoir bi nga am dafay métti moo tax il faut nit ñi ànd ak intelligence tey promoteurs yi bu ñu amoon ay milliards dinañ ko tegal mbër yi bu fekkee ne dëkk bi dafa métti amuñu sponsor ku ci ne li mu am bu ko tegee ci taabal ji wax dëgg war nañoo mun a ànd ak xel fexe di bëre parce que mbër bu bëreetul rek nekkatul mbër. kontaan nañ ci yow monsieur le ministre. Ah, loolu de la am lu ma xaw ma nag nu ngeen koy jëlee.